asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaar di am mbégte kontaan te gën ki nga xam ne mooy sëriñ Abdou Lahad Diakhaté euh, nekk nekk si sët ki nga xam ne mooy sëriñ Mouhamadou Lamine Bara sëriñ Abdou ngi leen nuyu bu baax a di la siyaar di la dalal si Infos Rewmi. waaw salaam wa rahmatulah waaw kilifa yi ñoo ñoo ngi siyaar bu baax euh, di nuyu mboolem waa Infos di sant bu baax di leen di leen fay nuyoo. baax na jërëjëf. ñu bëggoon euh, nga ñëwatal ñu tuuti ci histoire ki nga xam ne moo di sëñ Mouhamadou Lamine Bara. waaw waaw asalaamaaleykum. asbilah min sarajim bismillahi rahmaani rahim. Euh, alhamdulilah am nan yafuq am na min anbiyaay euh, ginnaaw bu ñu ñëw tey. te julli jaan bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yàlla sama borom di santaat Cheikh Mouhamadul amin Bara te am mbégte tamit ci ci teew fii ci barabam bi di fi ñaan yàlla faj suñuy aajo ak mboolem mbindee bi te defal jàmm ñëpp ci barke jëm ju ji tëdd fii waaw mu mel ne li ñu sàkk woon mooy ñu xamle ci tuut ci Cheikh Mouhamadul Amine Bara mooy kan ak histoire waaw loolu moom xam naa ne euh, lu jafe lay nekk waaye tamit du jafe lu tax lu jafe mooy Cheikh Mame Amine Bara de euh, dana dana xamale ko dana yomb dana nekk lu xaw a yomb ngir boo koy wax da nga naan Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mooy woy juróom bu góor te yaakaar naa aw askan mën dëgg gën a màgg euh, bokk Cheikh Ahmadou Bamba kon loolu yaakaar naa lu yomb la way juróom jigéen soxna Aminata Lo kon <clears throat> euh, moom mu mu gënee àdduna fii ci Touba ñu wax ne moom mooy ki ki njëkk gënee àdduna ci njaboot wala ci njaboot sëñ bi wala ku góor sax moom moo fi ganee àdduna ci góor mu defee ko fii ci jumaa ji tey fii te sëñ bi tëdd waaw mu nekkoon tamit euh, ko amoon lu cër fa boromam ku ku ku yàlla baaxaloon ku koo xam ne daanaka ak ja man ma wax na ak jagle la amoon ginnaaw mu amee ci jikko yu rafet yi tedd ngay jikko yooyu yëpp mu nekkoon koo xam ne ku yàlla jagle loon la mu ba leen jagle yooyu nag am yu bari yoo xam ne kenn du fekk ko ca waaw kon ko kooku mooy euh, Cheikh Mamadou Amine ko comme comme ni ma ko waxee rek ko koo xam ne ba nga ganee àdduna nga ñëw góor yàlla gu mel ne Cheikh Ibra ak ñeneen mag nga judd indi seen ngërëm kon ko kenn mënta xam kana kenn kenn kenn xamul kana comme euh, comme ni ko sëñ Moussa ko waxoon xal baax fees ba ne bu bay baa ko lëm bi comme ñu ñu tënk la koo xam dañ ko lëmoon yëkkul koo xam dañ dañ dañ koy xam daal mu nekkoon tamit ku ku ku ku amoon ab sàncañ ci boromam juboo woon ak boromam nga xam ne lépp lu mu mas a wax rek euh, sa borom. da ko daan def euh, ñuy profité ci barab bii nag di ñaan di ñaan ci jëmm ju tedd ji fi tëdd sama borom defal lool képp ku fi nekk ak mbooleem jurit ak képp ku ko yaakaar wala bépp jurit rek faj ajo googu mu amee woon sa sa sa sa borom defal la ko waaw moom nag ci ci njàngam ja mi ngi bi mu nekkee tout tànk ci dem avant sëñ bi dem lañu wax ne moo ko dalal boole ko Cheikh Mamadou Fadal ak euh, sëñ Modou Moustapha joxo leen sëñ Ndaam Lo moo moo leen fa leen kiiwee jàng ci jàngam tamit ñu wax ne ginnaaw gi ba mu nekkee tu tànk am tawat soo xam ne daa gane woon jamono moo daa amoon jamono yooyu xawoon koo sonaloon lool daanaka ba xawoon a kii si am jàngam waaye ci comme moom ni ma ko wax rek léppam jagle la woon ba tax na euh, bi ka katar gi xawoon sonal ba làmmiñ bi xawoon a kii ba daanaka jàng mi xawoon na xawoon naa sooxe loolu nag am na ci ay version am na ñuy wax ne ci zahir moom jàng aw jàng ci alxuraan ji la yemoon ndax dafa woon naa kii am tamit ñuy wax ne jàng na ba géeju waaye la am sol daal moom euh, li mu waxal boppam daal moom loolu xëy na mën nañ cee dégg ne xëy na xam-xam ba mu amee woon lu ci bëri daa nekk loo xam ne lu ko lu ko bàyyam fàggaloon la lu ko yàlla xamaloon la waaw ala kulli xaal daal lépp mën naa nekk ndax fi wax ala alamtani yaa rab la dun ka wax ay man yaqin yàlla asa wa shakka ne yàlla moo xamal ci ci xam xilm la dun yi xilm la dun la nag mooy xam-xam boo xam ne yàlla moo la koy defal rek amoo droit am ko pare naan moom ak may wala nangam yàlla moo koy defale te comme loolu tamit mën nañ ci dégg ni ci xam-xamam bi tamit lu ko yàlla yë yënkawal waaye xëy na mën naa bañ a bañ xëy na bu liñ wax ne jàng dese naa kii loolu mën a wéral la daal ci ci ci ci ci wàllu ci wàllu xam-xamam waaw ak ak yeneen yeneen bayit yoo xam ne daal boo boo boo ko toppee mu nekkoon tamit nit ku ku géeju woon koo xam ne wax nañ sax xam-xamam lu ci ëpp luy firnde loolu mooy moom ci ci lecture daanaka ci liir waaye nekkul koo xam ne ginnaaw bi ko tawat gi kiiwee danaan jël téere dem ci ay nit ñu koy ñu koy tëral wala dara mais ci ci ci loolu ci la jaar daanaka moom moo daan moo daan moo daan moo jàngal boppam mu nekk mu nekkoon nit koo xam ne tamit ci jikko yu rafet kenn mënu ko ci woon kenn kenn foo nattoon yërmande ji ak baax gi ak tabe gi weesu na ko nga xam ne wër yim daan wër sax yërëm gum yërëmoon mbindeef yi xam ne war nañoo jariñu te yàlla sama borom bi bi bind góor ya nit góor yàlla yi daanaka loolu moo taxoon yàlla yàlla amul lu dul mbindeefam yi ku leen yërëm rek la xam moo tax daanaka daanu toog toggoo woon wër di di di di di. Hmm. waaw comme comme comme comme ci ñi nekkoon di kii noonu rek. Euh, Cheikh Mouhamadoul Amine euh, mu nekk koo xam ne dundam euh, ci comme ni ma ko waxee ci daanaka jariñ mbindee fi daal ci boo delloo ci dundam bind na ay xasaayit yoo xam ne macha allah yenn yi bu tawat moo moo ci ay waaw bu dee moom nag. Euh, ci wàllu bind ku ci géeju woon la waxees na ne sax ci yoon yi wala ci njabootu sëñ bi mooy ku ci ëpp lum bind ci xasida bi nag boo demee di ci fekk yu bëri lu ci mel ne bu dee ci nga xam ne yaarab na inal wara nga xam ne xeeti tawar la daan jëm wala dara wax nañ ne baax na ci lool te te sax wax na ko boppam nga xam ne lépp lépp loo xam ne da koy nga xam ne yaataloon nañ ko sax bi mbas mi duggee ci ci ci ci réew mi ci xasida yi tamit euh, bokk na ci lu mel ne am na ci yoo xam ne wax na ne ku ko jàng sawara du sawara du la lakk du man ci yow dara waa am xasida yoo xam ne am bëri na daal de xasida yi yaatu na tibbul fuaat munawirul na euh, dax bu ibris yi ak yoo xam ne ci ci histoire sëñ bi bëri na ci xasida yu bari yoo xam ne daal moom moo ko bind te lépp di di di ay boo ci mën a jël rek domaine boo ci mën a sàkku ci loo xam ne bu dee ci lasraar la wala ci jaamu wala wéetal yàlla boo boo dem rek boo jëlee xasida mën ko ko caa mën mën ko caa def comme daal moom ku ku matoon la ci lépp bu dee ci jikko comme ni ma ko waxee woon rek yéen a ci tey mu nekkoon loo xam ne ñëpp dañ koo séedeeloon ay rakam ak i magam ci ci taalibe bi ndax murit moom amul lu ëpp solo ci moom amul taalibe ndax sëñ Tuubaa doo nga fi nekk nag waaye mën a wax sëñ Tuubaa kese fi ne te mu yor da koy jaay te ak taalibe la koy jaay ak jëf moom xam mu mel ne ku xamoon loolu moom ku comprendre loolu la ba tax na mu am. waaw comme œuvre yi comme comme comme comme comme ni ma ko doon cité cité noonu rek euh, euh, ci gën a mel ne Munawir Bunyan ya xëble yaare bi warin xiyaar am na euh, Dahbu Ibris Saadatul ab Abrar Saadatul Axyaar Safinatul Amaan Sirul Masun yàlla yaa fi faat fax durana bëri na bëri na ba am boo toogoon fii di ko lim dara en tout cas euh, bu ñu ko doon ci bibli ah, wàllu bibliographie bind na loolu macha allah damaa xamul nag sax xëy na tooluwaay gi waaye ndax dama maa génnoon bee soog a waaye bu ma fi dem di daan bokk ci daayira su sëñ Bara yaakaar naa euh, lu jóge woon ci spirit de soixante-dix yoo xam ne dajale woon nañ ko yoo xam ne ci bindam la woon jamono yooyu xam xëy nag xëy na waa weesu na foofu dematuma ci. pour wan ne leen rek loo xam ne dajale woon nañ ko ba toppaat ko te bokkut ak lan dajale woon te te te yaatalaguñ ko wala toppaataguñ ko wala xaw ma fu liggéey bi tool waaye loolu amoon na ca lépp pour pour pour pour wane ne rek moom ci ci ci mbindam moom te chaque jour da daanaka da ngay mën a gisaat yoo xam ne moo ko bind te xëy na yaatoogutoon wala waaw macha allah ja jàmbaar la ci loolu liggéey na ci lu am solo. ñu lay jaajëfal bu baax si sa di la bàyyi nga tàggatoo ak mbokki internet yi. waaw. Euh, comme comme niñ ko wax rek ñoo ngi ñoo ngi nuyuwaat ñëpp tey tey ziar ñëpp te di sant yàlla bu baax a baax a baax euh, di sant yàlla di ko sant di ko santal sëriñ Touba di ko santal di sante yàlla euh, ci am gi nu am tamit ku beneen Serigne Touba ak Cheikh Mamadou Amine mi tax ñu ñu toog ko sant ci am gi ñu am yonante bi lépp day wone yërmande gi yàlla am ak jariñ gi mu bëgg mbindee fi jariñ ba mu tax mu bindee ñu mel noonu. waaw di ko sant tamit ci weeru mel ne weeru safar mi nga xam ne lépp ay cant ki xéewal la te sama borom dogal ñu ñu ñu tàmbali ko di ñaan ñu ñu ñu àgg ci maag ak jàmm te lépp di ngërëm ak i xéewal di ñaan barke ak xéewal ak yërmande yàlla ak jub ak yàlla doon ñu ci taalibe ñu koy ñaan suñ borom defal ñu ko ci safar gi ñoo ñoo ñoo ngi nuyu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah